Ablaye Wade ñëw euh, ñu ràññee loolu bëggam bi mu bëgg. Euh, sëñ Saliou euh, sëñ Saliou Mbacké. waaw Ablaye Wade fekkante fekk Cheikh Saliou ak ki nga xam ne moom mooy sëñ Bara. Hmm. mais de tous les présidents africains. Hmm. Ablaye de tous les présidents sénégalais Ablaye la ñu jàpp ne. Hmm. moo gën a wone xërëm. ci Touba. Euh, ak ci ak ci ci mouridisme bi mais lan moo tax nit ku mel noonu yow ak Ablaye Wade les relation c'était des hauts et des et des bas mhm. euh, c'était parfois tendu euh, parfois apaisé mais lan moo tax day bi nga mag ma ndaw <laughs> juboo bi nga juboo Macky Sall ah. juboowuloo ko woon bu baax ak góor gi ak góor gi non pourtant góor gi dëngoowuñu xanaa lenn mhm. lenn de xanaa mooy ba mu ñëwee bi mu bi mu bi mu bi mu absenté lu yàgg bi mu absenté lu yàgg ba dellusi dafa am taxawaay bu mu bëggoon a def te ànduma ci. cest boobu nag daa garaaw. lan la. <laughs> li la ma jàmbal waxoon laa lay wax. <laughs> ko sëñ bi. léegi nag li la ah li la ma jàmbal waxoon laa lay xam ne loo eh. xam ne doo ca yegg. Eh. loolu. te pour ma génne ko ca il a ma jël benn xale neexal ko benn crise leer benn xale bu ko jege woon pour la mu naroon mu changé ko. xale parce que xale bi daf ko déglu xale bi moom dinaa la dinaa la booleeg moom dafa nekk Dubaay waaye. <laughs> dina ñëw tey suba nag dégg nga il a falika que xale bi la mu naroon ma wax xale bi mu mu am yu mu dugal ci bopp bi ni ko ci man lay jóge ak yooyu waaw waaw dëgg la changé na la mu naroon génn na ci waaye ca la merewoon na ma ca itam <laughs> ndax la ma ko ca génne. parce que loolu du woon arrangé réew mi daal. mais mais nga ne moom dafa nekkoon mag te yow nekkoo mag. nekkoo man du ma gone waaw tey waaw xam nga mais bi mu bi mu wàccee ba nekk Versailles seeti naa ko fa pourtant seeti naa ko fa juróom-ñaari tali bi tubaab fekk mu bëgg maa yónnee otoom pour mu jël si ma ma ne ko déedéet tali bi nañ ma jël si juróom-ñaari tali bi tubaab ñoo ma jël si wutal ma limousine ma yóbbu leen ci moom ñu ñu koy xaddis di ko. ñu koy addis taal taal bi mu ne ma man defoon naa ne xam naa la ndekete woo xaw ma la nangam ak ki nangam. taal bi mais lan moo doon seen i divergence pourquoi seen diggante neexul woon bu baax a baax baax comme yàgg sa relation ak Macky. seulement man seulement man kenn man doonuma koo xam ne man leen ki laay dund man ku tedd ki laay dund donc damaa amee samay principe dama am autonomie damaa am sama autonomie personnelle comprendre nga te chef d'état chef d'état la. chef d'état moom danga koy bàyyi rek ci ay kii mag yu demee noonu comprendre ak itam moom dafa defe woon li mu foogoon amul moom bi muy falu bi muy falu dafa defe woon ni dama ko dama jàppale ab di juuf ah, daf la mere woon ci pal gi. moom dafa defe noonu. Mm-hmm. jàppale. moom dafa noonu. l'an 2000 Abdou Diouf laa jàppale. ah daf la ci mere. da non merewu ma ci sax parce que mm-hmm. maa ngi fàttaliku bi mu faloo bi ñuy njëkk a gisee te mu bàyyi ma fa lu yàgg bàyyi ma fa lu yàgg Abdou kii Idrissa Seck mi sax ak doom ji Karim mu romb nañ ma nii fekk ma toog ki Iba Der Idrissa Seck ak kii ñu nuyu ma nuyu bu xafif nuyu bu kii. ak yooyu naa dañ may wone nuyu bu kii ak yooyu daal di léegi mën naa faa yàgg ma ni Ibader xaaral man kat wax dëgg yàlla <laughs> yi moom tàmmuma ko Ibader tàmbali di ma naan ma Casamance Jola yu jógee nii bu ñu xëyee nangam ak nangam di ma ki bëgg laa tee bëgg maa tee léegi nag waaye bi ñu kii ba ñu woo moom ci ñuy toog di waxtaan mu naan ma góor gi tàmbali xuloo naan ma fii yàgg na ma <laughs> naka jëkk naka jëkk bu yàgg na maa xam ne naa fi mu sa toog. <laughs> xuloo mu ne la muy xuloo ak yow. xulóowul dara léegi <laughs> góor gi. Eh. léegi nag foofu léegi nag la taxoon ma tuddee ko doom ji sama sama gi doomu Aïda moo ko jur doomu kii la taxoon ma tuddee ko xale ba 2007 mooy damaa dem Kaolack léegi nag benn waxtaan bu ma fa doon def daal ni mag bu nekkee ci ay tool ba ay doomam mag ba nekk waxambaane dafa war a noppalu ak yooyu léegi nag mu yónnee ci sëñ Saliou ni moom laay léebu <laughs>